bismillah ikfini adana ya allah safi baqa abin بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لفيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أرجو برحمتي ألا ألاقي الدر رن منك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 خدست سريا يا قدوس منتليا عني وعن كردي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله anta salaamul si salam takun liya min uyo bi nafsi bi tay in minka ya allah ya mu'minu fi تيبتلي الأزمان ولي وحبت الروح والجسمان لي جدت بالبقاء منذ حانا من قد خلوا وكسر الألحان ذل رسول الله قد آوانا منذ الأمير أزهر العدوانا أنت الذي ألنت من عادانا بمدح من كتابه هدانا ليرت من سلمني فلانا ولانتقمت منه يا مولانا مد مكوسي سافيا جسلانا وللأمير قلد الخزلانا بالله يا من لم يزل رحمانا أيا رحيم لي أدم أمانا نفيت من أخرجني مجانا بمدح من قد أهلك سجانا نفيت من أخرجني مجانا بمدح من قد أهلك سجانا يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير ولا اللعين لسواي مدبرا بما على زهري يدوم دبرا ما توجه المكاري ليا باخ حبا بذكري وحوليا حنح رديت وحو عني رادي بلا مكارح ولا أمراد رد لخير جاتي شيطانا من طيب الممر والأوتانا فر لخير جاتي لعين يسوقه لغيرنا المعين حديتي من الإله والنبي كليتي سفر وسفت نبي توفيق هاد خاده الإلهام قد أبدى لي ما لهن بحام بدت لي اليوم بربي الخيب أعاذني ممن خلوا وخيبا لا يتوجه لنحوي متعب عني مع المكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير am na ñu ko ko dàq mën a def fopp te am na leen lu muy wut sëñ Tuubaa dong lay xool si si moom sëñ rek ko booleeg moom jëmmi sëñ Tuubaa lay ñëw man nag tëggaate wu ma man ku ne xam na ma man tëgguma kenn man du ma kii kenn waaw lu eh, eh, damaa bari le ndax damaa doylu sëñ Tuubaa jox la àddina ak li ci biiram soxaluma lenn fenn wala lenn kenn sëñ Bàmba rek kon la may wax lu wér la moom mii looloo ko fi indi sëñ Tuubaa kese sëñ Tuubaa kese lan lay xool ci ngànna lan lan lay xool ci ngànna te ah romb na lu ëpp ay ngànna fop ci biti te jaarul foofa kon kii dafa am lu tax muy ñëw te daa fonk kookam tam ndax daaru rek la xam daaru tam la bëgg te kenn ku ne kenn ku ne xam na maam na mooy kan ab taxawaayam digganteem ak sëriñ bi nga xamee ne maam na sëñ bi moo sottee ko ci moom mooy léppi sëriñ bi kon nag moom bu jógee ñëw dox lii dox na doxaale na waa kër sëñ Tuubaa yëpp lii mu def nii waa kër sëñ Tuubaa yëpp a ko yéene kon bu ñëwee dikkaal leen na mbooleem waa Kër Cheikh Khadim mbooleem waa daaru gépp ak mbooleem yoonu murid yëpp bàyyiwul kenn lépp ngir ak yaatoom ngir ak mbaaxam ngir ak xeñtu lu uh, baaxam uh, keroog lañ ma sa toog bët ki démb xam naa ci mëtu semaine baa ci lay toll moom mii sa sëñ Modou Kara waaye da nga koy dégg yaat yi muy wax ay bayit bayit yoo xam ñun toujours dañuy gës waaye am na bay eh, am na bay sax eh, ci yoo xam sax mosuñu ko dégg ñun settantal bi muy settantal ak yaatal bi muy yaatal am na bay bi mu wax ma ba ne man tëdd biiruhu tëdd biiru boobu jàpp naa ko lool waaw kon nag Mbàkke ñoo ngi lay sant di la ñaanal sa barkeb maam suñu borom gën laa jàppale gën laa dimbali ak mboolem waa daaru yi nga àndal yëpp lii sedd na xol lool te dal nam xel ab taalibe boo xam ne jàmbaar la kenn ku ne bëgg na Euh, ci sëñ gànn mi mu ne ko sëb taalibe tey mu jagle ko borom daaru kon nag nga bàyyi sa lépp ñëw seet si ko loolu sunu sag la te da koy soñ mu gën a góor góorlu te it moom it bëgg na ko sëñ Tuubaa yëpp waaye borom daaru kenn la ko yemale wut maam Ceerno la xam maam Ceerno la gëm dong la bëgg waaye ne mi ngi maslaak waa kër sëñ ci yëpp ñëpp la amal amul ngan na moo xamee ni am na xajj ak seen ci mboole waa kër sëñ Tuubaa yi taalibe yëpp bëgg ko fépp fu mën a dem nii laa àndeek moom te nii laay doxeek moom di ko wan itam di ko tegtal ak ñi ma ko fekkal ànd ak ñoom nekkoon ko nag liggéey bi doo ci dara sëñ Tuubaa la bul mas a wane sa bopp lii sëñ Tuubaa moo ko moom nanga nga waggar wàkk sëñ Tuubaa yi kenn ku nekk luy ciiram jox ko donga yi itam bàyyi leen xel ndax donga yi baa doomu aadama doomu aadama bi sifa am ma benn doomu aadama bu ñàkk njariñ amut xanaa boo xamul njariñam moo am kon nag yow maasaleel nanga fonk ñëpp na nga jàpp ñëpp téye ñëpp yow jokk moo la war sëñ Tuubaa dalay lay liggéeyloo te sëñ bi ku muy liggéeyloo da ngaa war a yaatu hmm? tabe gore lewet lépp da ko war a def ngir jëmi sëñ Tuubaa waaye sëriñ bi lii de moom gën dalal suñ xel lool mm-hmm. ab soññe la ci ñun ñoo ngi lay sant nag yow di la ñaanal bu baax a baax sa barkeb maam loo bëgg dund ñoo ngi koy ñaan téeméeri at yàlla na tàmbali ren ci barke Cheikhul Khadim ci barke Cheikh Mawlana Mbacké di la sant bu baax a baax ku baax nga koo xamee ni itam dara ñoru la lu dut sëriñ Tuuba waaye lu lislaam bi waaye xeetil doomu aadama yëpp jëmm la joo xamee ni am na ay xalaatam am na ay projet am na ay principe yoo xamee ni bu fekkee nit ñi dégg nañ ko buñ ko ci jàppalee lépp loo xamee ni naqari na nit ñi nit ku ñuul ah projet mu lépp sëñ Tuuba la lu sëñ Tuuba ma sunu junj rek mbaa lu muy xalaat rek ma nga ci di ko jiima euh, def kon nag bàyyi leen ko xel bu baax a baax lépp lu muy yëngatu nit ñi nag boo waxee ñun dafa euh, ci zahir ba lay dox zahir wala nangam a nangam doomu aadama dafa am zahir boo xamee ni jëmmi doomu aadama la lim soxla faw nga jox ko ko ndax wala tansa nasibaka min ad-dunya faaw nga nekk ci loolu te xewul yii suñ ci jox nag xéwal yi faaw ñu xéwalu ko waaw kulu min tayibaati ma razaqnaakum te sëñ Tuubaa lépp àjjana la lépp lu set la waaye ban nappe itam ñu jëm ci ruux gi ruux gi itam mooy bëgg Sëñ Tuubaa rek Sëñ Tuubaa bu doon jaay jéggulu ci kàddu gi waaye bëgg gi mooy njëg gi bëgg Sëñ Tuubaa rek topp Sëñ Tuubaa rek ànd ak Sëñ Tuubaa ku dul Sëñ Tuubaa doo lenn jëmi Sëñ Bamba rek Sëñ Bamba ñun ñëpp ñu àndandoo bëgg Seexul Xadiim jàpp ko loo xam sa ndaw soo si ëllëg kum dimbaliwul ndimbal dana la jafe kooku mooy ki nga ne moo boole lépp moo am lépp moo moom lépp te sañ Kara mi li ko tax a jóg mooy sëñ Tuubaa rek la feesee jëmmi sëñ Tuubaa rek moo nekk ci moom kon nag Cheikh Cheikh Ahmadou Kara yàlla nga yegg yàlla nga yegg junni at yàlla nga ko dund ci barkeb Serigne Bara Mbacké ah kon daal ñoo ngi jéggulu ci kàddu yi guddi na lépp la ab jamaj la ci yéen a laa waxee ah ba tax li ñuy wax sax a mënoon naa nosu ndax kàddu gi dañoo bett fay kon danañ la wax loo xamee ni incha allah bu dee ay tawaalif bu dee lenn lu ñu war a wax Euh, euh, euh, ci gis ko sa jikkoog sa roxu sa bëgg sëñ Tuubaa incha allah lépp nañ ko def waaw ndax sëñ Tuubaa sagal na la sagal na la sagal na la ci kii bi lay liir benn waay bu xorom mu xam naa daan ah kii de wërsëg bi yëpp da ko def ci wóom yi mooy sa taalibu boobu kii daal sëñ Tuubaa wërsëg bi da ko def ci wóom ah? moom sukk muy dox la xaw ma sukk muy dox la wax sukk muy dox non du raam sukk muy dox la ah jëmmi sëñ Tuubaa xool ni mu sagalee foofu noonu sëñ Tuubaa mhm. nga xam ne fu ne la mane mhm. fu ne la mane sañ sëñ Tuubaa maanaam nal ko bul am complexe ci leen mhm. loo mën a doon koo mën a doon bis bu loola doxee sa diggante sëñ Tuubaa maanaam perte nga tutut amati dara jëmmi sëñ Tuubaa rek sañ sëñ Tuubaa kon kum mën a doon nañ gën a fonkat sañ Tuubaa yi te bàyyi euh, benn complexe bi ku dul yàlla munoo jariñ munoo lor waaw waaw ah? képp ku jàpp ne ku dul yàlla mën naa jëriñ man na lor kooku juum na adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani amul kenn du fenn du kenn yàlla rek la te la am njëriñ yàlla moo yore lor moo yore njëriñ te mi ngi ci loxo Cheikh Khadim ku nangu moo ko moom ku bañ itam sëñ Tuba moo yor leen kon nañ jàppaat sëñ Tuba góor góorwaat sëñ Tuba sëti sëñ Tuba yi ak doomi sëñ Tuba yi waa sëñ yi ku leen di xeeb di wax def nañ nangam def nañ nangam nangam nangam mm. ah waaye te ngaa lijjini sa mbirum bopp da bàyyi waa kër ci Tuubaa yii nii sëñ Tuubaa ah tànn leen ba boole leen ci boppam ñu def la ñuy def xam la ñuy def xam àjjana xam sawara xam la yàlla digle xam li sëñ Tuubaa digle mm. yow lu ci say yoon sa diingat sa def nangam te ngaa lijjini sa mbirum bopp te bàyyi sa mbirum bopp doomu aadama dafay maandu ah man lu ma def yoonu kenn nekku ci man sama diggante ak sama borom mm. sëñ Muudu def diggante boroom la tax xam na fa muy teg tànkam du jaahil mais ah ah, ah tayit xam na lan mooy istabara allasina tubiu min allasina tabau kooku leer na nañ kon nañ gën a waat bu baax a baax toppaat Cheikhul Khadim te topp ko ci sëtam yii nii rek ñoo ngi jéglu lu baax a baax lépp loo xam a juba jaar waaleykum salaam wa rahmatullah